waa CEP yëpp mobilisé wu nañ waaye gis ngeen aussi ne gerte parti yëpp mobilisé wu nañ kon bu ñu sant bu ñu santee waa CEP dañuy sant aussi waa Gent parti surtout nag nelawul fanaanul guddi ak bëccëg fu mu toll mi ngi woote di toppatoo pour final bi am ñu ngi koy sant bu baax na di ko gërëm di sant jeunesse gent Pathé yëpp à son waaye di sant aussi Mame Fatou Mame Fatou Gueye xam ne ku xam Mayacine Camara xam nga Mame Fatou kon bu ñu ko santee sant nañ jigéen ñi mu àndal ñëpp mu ngi mel nii tey borom dëkk Gént Pathé sax moom it mi ngi ci yoon ne day ñëw démb la ma gis ne ma tey si gis na ma ne ma dina teew fii. te loolu dafay wane ne gent ak ceeb benn la te loolu lu am solo la tey jii lii ma gis fii dafa dal xel ñëwoon nañ ci comme ni ko Awa Sakho waxee Awa Sakho nag moom du ma ko gërëm parce que moom maag moom benn la benn la fu ma feebaree mu dee su feebaree dee su ma feebaree ma dee waaye bi mu fi dugalee ba léegi aw ma dara lu may rëccu ci ceeb waa ceeb gore ngeen bu baax a baax a baax am ngeen kóllëre tamit léegi nag comme am ngeen kóllëre tamit may fas naa yéene gën a fasaat kóllëre boobu topp ko ba abadan daa yi mën incha allahu rabbi biñ fiy dugg it moo ñu fi teeru woon tey waroon na fi teew mu may woo léegi a ah, yegg si na sax ah très bien kon boog tey jii mën nañu wax ne ñun ak ceeb ak gent paate nekk nañ benn en tout cas Mayacine ak ñi mu àndal ak gent paate ak ceeb ba jàppale ne yëpp benn ci lu ngeen di dugg naa ko yëg ci li may nekk it di ngeen ko yëg incha allahu rabbi jeunesse bi nag yéen lay waxal parce que dëkk jeunesse moo koy yore seen premier rôle mooy école bii nii ngeen toppatoo ko bu ñi fa nekk di ngeen toppatoo leen ñu jàng ñi jàngiwul ngeen fexe ñu jàng ñuy jàngi aussi ngeen fexe ñu topp jàng. li tax nag ñuy politique loolu rek la bu ngeen ku feebar am foo faju ku bugg am foo rootee ku bugg a jàng nga dem jàng loolu moo tax ñuy politique. xam ngeen bu baax ne ay échéance bi ngi ñëw awa saa wax na ko léegi dañu war a mobiliser. falaat Macky Sall bi nga xam ne moom ci boppam moom ci boppam moo ñu wóoru teg ñu fii nee ñu lépp lu ngeen gis loo xam ne mébét la wax leen ma ko ma def waaye am na yoo xam ne nag ñun ñoo ko war a régler suñu bopp président Assane Diop liggéey na bu baax ci département bi yàlla yàlla guddal fanam gën ko yokk leer gën ko yokk doole. ba tax na nag bu ñu nekkee ci ay élection tamit locale da ngeen def nañ ba nga xam ne ñun dinañ mën a contrôler suñu département bi bu ñu soxlaa clôturer suñu bu ñu clôturer école bi bu ñu soxlaa clôturer terrain bi ñu clôturer waaye tey jii engagement bi ma mën a jël mooy incha allahu yi peeg déwén dinaa leen utal ay camp yu am file. loolu comme duma département comme duma maire Mayacine Camara rek laa loolu moo tax yéen jeunesse bi dinaa leen may ay camp ak ay file yaakaar nañ leen leen lool yaakaar nañ leen lool waaye yaakaar bi tamit yaakaar yi bi tamit bu ñuy def politique politique buñ loo xam ne du leen amal njëriñ bu ngeen demee ba nga xam ne gis ngeen loo xam ne amul leen njëriñ mën ngeen rocceeku vers seen saawu bopp bu ñuy politique it dañuy waxante dëgg jàng lañ leen wax jeunesse bi éducation ngeen def sport ñun tamit lépp lu ñu mën dinañ ko jëlee Dakar andi ko fii ci commune bi wax ko ak yéen incha allah

di woo vainqueur bi vainqueur bi